mbokku internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñoomati mbégte bu baax ah amati mbégte contentement baaba Babacar ah, ñu ñëwaat li nga xamante ne tey jàkkaarloo li nga xamante ne mooy docteur Abdoulaye Diallo ñu fas yéene waxtaan ak moom bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ci coté jàngoro yu bari jamono ji sonal doomu adama yi ci lu baree baree bari ni na nag wax dëgg yàlla am ñun bañ dalee nekk ak moom ba léegi di waxtaan ak moom ci côté feebar mu ciy génne ay solutions am solo bari na tey ñoo xamante ne tey ci àdduna bi dañuy déglu suñu émission. mais damay dugg ak moom rek léegi-léegi ci waxtaan wi ñu ñëw ci li xamante ne tey ci yenn maladies yi nga xamante ne tey sonal doomu adama yi baree baree bare ñu dem fu ne nag def ci ay xaas yu baree baree bare da ngay ne la def naa fu ne lii mënut a wér wala lii ak lii et cetera day fekkee ne da ngay gisanteeku ku ko mën a faj mais am na feebar yoo xamante ne incha allah bis boo ñëwee jëflante moom xam naa ne dina am taw tawféex docteur ñu ngi leen nuyu baax di la siyaare. di leen sant di leen naan dal leen ak jàmm yëpp. di leen baal àq. di baal àq leen. baal naa àq liñ ma wax daaw bi ma nee bi ma nee du ma woor. dama leen xamal ne que ren mun naa ma dem màkk ma dem woori foofu. xam nga donc moo tax nit yàlla moytu ko. xam nga koor. Mm-hmm. nit ñi niñ koy defee du noonu. Mm-hmm. moo tax boo paree di delluwaat ci lu bon yi nga nekkoon mais koor boo ko defee mu nangu mu jàpp dootoo xoolati lu daganul dootoo waxati lu daganul dootoo dox ci lu daganul woor ba pare di continuer doxaan di continuer fen di continuer cagatu di continuer xool ay porno di continuer di di xool ay jigéen di continuer di di di di di téesante loolu koor la jour korité sax nga dem sa kër gel yow kay sa koor jàppul yow kay danga danga doon xiifa rek parce que corps bi c'était t'entraîner mm. pour nga baax c'était ça l'objectif man dama ne duma woor parce que yàlla may na ma moyen bi ma fayee bi ma lexalee soixante miskin te su ma wooree man du ma nekk et je reçois énormément de gens damay nekk di saaga rek di mer jaru ko. damay woor di lor nit ñi du damay woor. te mun naa maye mun naa lexal soixante miskin mun naa maye soixante mille par jour. Hmm. mun naa sax maye six cent mille par jour du may wàññil dara du tax may woor xanaa kay li may sarax nit ñi sax moo ëpp ba tiyaaba ci koor gi. Hmm? kon kay man feebar bu bon bi laa yor su ma wooree damay dof. Hmm? <laughs> man je dis les comme telles léegi xoolal. xam nga boo jullee benn waxtu kaaba ga ça fait cent mille prières xam nga xamul nga loolu benn waxtu ça cinquante quatre ans et demi di jaamu yàlla bu nangu léegi léegi su ma demee Makka ñaata waxtu laa fa nar a julli léegi donc su ma wooree benn fan foofu am naa cent mille koor ku fi ndeyam woor cent mille koor ku fi bàyyam woor cent mille koor léegi su ma wooree vingt neuf jours yi ñaata ñaata ñaata koor la am deux millions neuf cent mille koor mm. ah gis nga ni ma ko repêché donc dañuy yem quoi <laughs> oui dañuy yem ah. <laughs> bëgg critique di wax rek di mbele mbele mbele rek waaye jërëjëf Cheikh Bara Cheikh Bara Ndiaye gisoo leen émission bi Mara Niass bi ñu ko doon toroxal. Ah, ci loolu laa a ñëw ak yow léegi ci émission booba Cheikh Bara Ndiaye dugg am ay affaire yu mu wax. Mara Niass waat ne amul numéro Cheikh Bara. keneen woote nee da ngay fen et fen na ko utiliser quoi comme man ni may nee ni may waxee nit ñi dañuy fen parce que man de déjà nit ñi nee nañ ma damay fen kenn du ko wax ba tiit naa sax léegi ku ku su ma déggee nit naan nit da ngay fen damay tiit alors que effectivement ku waxul dëgg dañ ne naan da fen loolu du saaga. comprendre eh, bu buñ nee saa waxu dëgg da ngeen ne da fen c'est ça problème léegi Cheikh Bara ñëw moom tam mu gën a waat nag ne moom amul numéro Mara mm-hmm. te numéro xool léegi kooku mënu loon woote wala encore baalu àq mm-hmm. moo gën rafet mm-hmm. nangu ne dafa juum mu rafet baalu ak ne Mara baal ma àq kenn du Cheikh Bara parce que Sénégal fi nit lu baax dafa jafe ah. nii nag mooy Sénégal dañuy dëgg tër rek ne toj na xam nga man su ma la nee tu seras malade tu seras malade xam nga da nga foog ne dama ne di nga feebar alors que dama la nee ma jinax bii nga xam ne dafa feebar quatre mois laa wax ra seras malade hmm. réellement jinax bii nga xam ne dafa feebar. yow nga dégg ne dama la ne da nga di nga feebar donc nit ñi nañu xam ne déggin dafa wute ah. un savant aveugle boo ko bindee nga def liaison bi nga nga def un savant aveugle la signification elle change du coup docteur laa ba dama bëgg xamante ne docteur Abdoulaye Diallo mais dégg na dafa tàng ma ne non pourtant tàngu la ah. su ma nee la vie des autres et la vi des autres m'importe peu la vie mooy seen avis la vie mooy seen dund donc il faut nit ñi passer à l'essentiel quoi ñi saaga ñoo leen gën ndey gën leen bàyyi gën leen tekki gën leen mën a toppatee seeni kër yéen vous êtes des yàq un irresponsable buy téye rek téléphone am rek di critique nit di saaga un irresponsable un irresponsable mu ngi mel ni jigéen buy buy infidel ci jëkkëram ku yées jëkkëram rek lay infidèle jigéen bu infidèle mm-hmm. di di ñaalo ku jëkk ku bàyyi bàyyi kooku rek kooku rek ngay jël ku ñàkk fayda rek ngay ngay ngay mm-hmm. donc koo gis muy saaga rek wala di kii cest dire c'est le maillon nag quoi mm-hmm. c'est pour les faibles c'est pour les pauvres waaw xam nga <laughs> buur yi patron yi ñi aisé taluñu yooyu quoi doomaraam yi rek. <laughs> dëgg la mais euh, ci côté Cheikh Bara di nit ku baax di ko ñaan yàlla yàlla suñu borom defal jàmm. dépassé passé na foofu. seetlu na ngeen dara ci Cheikh Bara. charisme am cest et puis yàlla daf ko may mu mun a wax. est-ce gis ngeen xel Cheikh Bara. man de am ci moom. lu mu tontu lu rafet la. lu mu wax lu am maanaa la mënoo ko dugal ci wax <laughs> te attention li la wax <laughs> li mu wax ci kii bi ne këram deux cent mille lay dépensé ëpp na loolu de <laughs> hmm, kii li muy dépensé par jour et puis muy maye. Hmm. boo ko bañee la daf laa gën rek nga bëgg mel ni moom rek te mënoo fexe ba mel ni moom rek moo tax nga koy bañ kullu wirdekat kullu kuy naan sëriñ la nga ngay recevoir nit ni Cheikh Bara nga bëgg a mel maa ko boo weddee yow woon ndax am nga li Cheikh Bara am ndax sa kër dañ koy fréquenté comme kër Cheikh Bara dañ koy fréquenté ndax yaa ngi dawal oto comme bu Chebar te leer na ma ne yow moom am na fu ñu déggee ci yow affaire cagatu Chebar moom kenn mosu ko déggee ci affaire caga ñàkk fay de kenn mosu ko dégg ci ko dégg ci yooyu foo dégg mu wax ci nit dafa tontu kooku. waaw. yaa ko tooñ mu tontu la droit de réponse rek dafa am yàlla sax day fayu. yàlla. yàlla sax day fayantu xamu xam nga loolu. Mm-hmm. moo tax mu tudd muntaqimu. waaw kay. sama yaay bu ma sax day fayanto muntaqimu mooy kuy fayu muhliku mooy kuy alak muzillu mooy kuy torxal mu meeti kuy reyee damay jël ñeenti mii yëpp ñaf sa ndey ci biir <laughs> dóor la waaw waaw man man kay boo mu moom damay ubbi mim bi xëcc ñeent yëpp muntagimu bi muxliku bi musillu bi mumitu bi toroxal la damay fayu toroxal la matt la gajj la ba pare lay la maa tey wirdu boobu kese moo ma dese dootuma wirdu man wirdu xaalis am naa garab bu gën a gaaw pour am alal benn richesse boobu moo gën a gaaw wirdu kay mën ngi wirdu cinquante sax yàlla du nangu xam nga xam nga yaa ruj jalaalul ikram ku ko wér fois moom chaque jour boo ko defee 40 jours da ngay riche <laughs> def ko nga xool ak keneen ki jël sama benn richesse nga xool kuy kuy ëppale xaalis de un kële sonul de deux dafa sangu ëppale nee nga doo ko jox xale. non c'est pas que xale du ko jël ah, man xale laa mais responsable laa bëgg a wax. Ah, yow suñ la ko joxee yow mii tey yow mi nga xam ne da ngay statut di fecc ah bëgg àdduna su ma la ko joxee nooy njëkk a def jëndee yére wut oto bu rafet di doxaani boîte yow boîte nga dugg fa ah hmm? léegi nga tëdd ak jabaru jàmbur yi waaw parce que bu dee gel la naroo ko takk jabaru jàmbur la mën nga def vitesse nga dee ci accident bi léegi lii yëpp kuy sabab bi man te man taluma lu dul sama bàmmeel man taluma lu dul tey fu ma nee nii man fu ma toll sama bàmmeel laay liggéeyal <laughs> lu ñuy am moom am na ko xam nga moom bu dee moom macha allah am na l'argent l'argent moom am naa l'argent <laughs> man moom ko amul xaalis am na xaalis ku santul yàlla man sant naa man moom sant na alhamdulilah rabbil alamin léegi nag sam bàmmeel lay liggéeyal et je le rythme que j'ai vu ban lay dund rythme boo xamante ne présence de n'importe qui et l'absence de n'importe qui mais tegal am nit ñàkk nit laa yemale même mon fis bu deewoon sama yoon newu ci ah. barki Seydina Mohamed jabar je m'en fous j'ai même pas le temps d'aimer nag bismillah ci dekkoon tu sors de chez moi du ma de damay tëj sama gémmiñ dootuma wax ak yow ma jox la dépense nga togg duma ko lekk moo wàcc dugg sama biir nekk tëj bu hmm? yeggee doo dem laaluñ la doo dërër ba ma ne rafet nga doo rousa ba ma ne sa rousa rafet na ba ma ne la xam nga su ma la ne sa rousa rafet na sax mooy dem laa kukkali parce que sa rafet nga ma ñëw ma ne ah xam nga dem laa kukkali mayu ma la xaalis faale wu ma la ah, loo fay def di nga ñibbi waaw nga lu tax bëgguma kenn doon na man man liggéey samay vie liggéey samay milliards liggéey samay kër xale bu jigéen de rien du tout ñëw rek donn na lépp toog ci lu tax luy ndeyam mu ne son na nga kaa fekkee man aucune femme ne peut venir dans ma nga jàppale ma ci dara dangaa fekk lépp rafet man damaa xamul sax lu ñuy sëy looy sëy soo ñëwee sama kër la ban sëy ngay sëy xanaa ñàppante <laughs> loolu kay loolu c'est pas sëy ça yow gaz bu manqué da ngay yónnee chargé la ma yow mënoo yëkkati gaz nga dem chargé mm. sama yaay sama ñoom yaay matt lañ doon toggee mm. wuti ko togg yow xamoo loolu fekk gaz ay gaz en pagaille nga fekk ci waañ bi mm. ay gazinière nga fekk ci waañ bi des ampoules des des des moulinex le frigo ba mu fees chargé le congélateur ba mu fees jënd jën yu cher jënd xar jënd mouton jënd teg lu amul sa kër bàyyi ngay tëdd ci lalu million amul sa kër bàyyi di ngay tëdd ci ay fauteuil 3 millions amul sa kër bàyyi sa kër bàyyi gis naa fa salon yu fa nekk ah léegi nag ban seege si ma yor sama magasin tissu saa yu ma duggee xëcc la benn tissu jox après nga nag da ngay sëy luy sëy ba pare ngay ut mbindaan yow munoo sax fomp. kuy dugg ci kër gi sax da ngay fomp yow sa yow yow sax bale sa kër ah ban sëy ngay sëy léegi ma dee nga doon na ma doo meraam jërëjëf jërëjëf docteur muñ kooku moom jigéen bu ko yaakaar <laughs> xamal man sama ndey gën liggéey sa ndey léegi ma ma sama ndey gën loon liggéey duma la yore di yëg sa kaw <laughs> jërëjëf docteur. mos naa tàkk benn xale bu jigéen. Ah. ñu coow nii rek mu ne waa mais ñi ci wërsëg la man yaa ñàkk jëm yow munoo am doom nga naan nit wërsëg xanaa kay jigéen boobu wërsëg dina am doom. yow nga lamb ba am quarante quelque yow yaa ma mag sax ma yéeram la takk la nga naan da ngaa wërsëg yow foo amee wërsëg am wërsëg karaw karaw bopp sax moo te tam mu ne même bu saa yu mu génn loon ak nit mu porté ko bonheur yow yow ngay génn ak nit ci caaxaan nga ne da nga ko da nga ko mën a porté bonheur dañoo yeb yàlla ci njaaloo nooy porté bonheur ah léegi mariage bi tas na tey laa gën a takk ana bonheur am moom muy gën a pauvre ana porte bonheur yow sa kër bàyyi sax du kër yaa rien là-bas amul sax bâtiment war nga naan porte sa bàyyi bonheur Sénégal dañoo réew. jërëjëf ñu ñëw ci euh, ci li nga xamante mooy ci euh, fañ mi wala ci côté li nga xamante mooy malade yi nga xamante ne dañu amee yenn feebar yi ñu bëri ci àdduna bi actuellement parce que te demoon nañu ñuy xaar li nga xamante ne mooy Actubuzz TV seen diggante ak nga xamante ne mooy ñu fi war a jëlee tey loo xamante ne njëriñu doomu aadama la mooy ci côté hépatite B ci lay ñëw ak yow. hépatite B mu ngi def fureur ah, ci àdduna moo tax may naan Sénégal yi. na ñëpp dem defi test waaw parce que man leer na man cinquante pour cent wala soixante quinze pour cent population am nañ ko te gars yi bi koy yëg c'est trop tard ah, parce que la plupart fii gars yi ni ñu koy mooy bu ñu demee maye deret ah. ci lañ koy yëg te ñëpp dañu dem maye deret te pourtant ñi may deret yëpp moitié bi yëpp dañ leen naan am ngeen hépatite B léegi nag après dañ lay naan waaw ah, mais yeewagul day nelaw waaw mais noonu lañ la mën a wax parce qu'ils n'ont aucune solution pour ça médecine amagul solution pour hépatite B amuñ benn comprimé déjà même foo bu àggee yenn kii yi euh, tenofovir bi ñu lay jox boobu bénotis bi da gisee gis pour les sidéens ñam sida ñoo ko moom biiral parce que c'est le même virus que virus la docteur Diall mii Abdoulaye Diall mii kese moo la mën a wax dara ci hépatite sànq may wax benn boy laa bu ñëw fajo ma ko man ma ko da ngay moytu bu man nag je suis toujours exposé man sa xaalis bi sax mun na ma wala mu ne ma c'est pas ma ne ko ma lay wax nga naa man li ma xam sa bàyyi dafa xam ci hépatite ci loolu ne ma c'est pas ma ne ko léegi boo defee booy lim xaalis bi te nga tufli nga naan nii sa salive bi mënu maa walla mu a ah, ma a ko génnal fajuma la barke Seydina Muhammad te fekk bind naa tuuram ba pare dam ko dàq man tiim fee leen politique sort de chez boo yéexee ma jóg te su may jóg am na ñu may jógandool nag ci comprendra rien du tout ok <laughs> bu ma lay faj fayoom la ko fi jar de cinquante mille par mois ci hépatite man sama xarit docteur yi ñu may naan yaa ñàkk jom bëggoo xaalis yëppati cinquante mille par mois munoo laaj cent mille munoo laaj cent boo laaj deux cent man damay jaamu yàlla man damaa gën a xam ne que hépatite quatre cent trente mille nga faj ko ba mu wér ci huit mois xam naa c'est c'est c'est mortel pour moi xam naa mais dafa am lu may carte du lay commencé def tono ñëpp xam nañ ne garab yi macha allah ñëpp xam nañ ne mën naa faj docteur yi sax ñu ngi may yónnee ay clients. te dem naa ba amaat ci ndam parce que dem nañu ba Amérique yi ñu ma doon faj Amérique découvrir nañ ne que ne garabu hépatite bi day fajaale rein. parce que am na amoon rein xam nga léegi loolu yëpp ndam la. Hmm. loo defal yàlla mu fay la man jaabil hasanati fa lahu ashru amsaliha wa man jaabi sayyi'ati fa laa yujzaa illa mislahum laa yuzamun barke Seydina Mouhamed Abouba sama liggéey amul fen barke alquran karim sama wax tàng na. sama kaddu dëgër na. Hmm. ñàng naa ñaaw naa. Hmm. mais damaa déggu te gis nga bureau bi laajal man bi ma demee ba xam ne lii yàlla daf ma xam nga sekk bureau bi actuellement macha allah liggéey bi dafa tegu ci temps daf c'est-à-dire même nit ñi di ñëw di ñëw déggu xam nga mu mun nga wax nga def benn communiqué mu doon fureur ñëpp daw ñëw comprendre nga mais léegi nit ñi ni ñuy ñëwee c'est du sérieux donc man je deviens maintenant un miroir ku ñëw gis ci boppam. mer meratuma man peut-être début way daawoon naa mer mais léegi xam nga lu ñu doon wax du déglu c'est pas que du sax boo amee colopathie. Mm-hmm. nee euh, nga colopathie nga am yaa xam nga faj nga sa bopp de yaay sa médecin bopp. Mm-hmm. man léegi noppi looy looy nga wax kolopati nga ma commencé ma naan bii bi day seere wala day am jaare xam kolopati di def jaare di def kolopati aussi di di def seere aussi nga naam ndigg bi day métti tànk yi day tànk bëri leen wax naa la ko bi nee naa la kolopati boo ko amee sa da ngay seere wala biir bi di daw euh, sa tànk day tànk sa bët day lëndëm sa boobu day métti tout temps da ngay am reflux gastrique doo digérer loolu koy waxoon naa la ba pare moo tax nga ñëw léegi looy ci perte temps di bëb bëb bëb alors qu'il y a des gens qui attendent am ñoo xamante ne eh, dañuy dem jëli di jëli vol da bëgg a waxtaan rek <laughs> tu veux que je t'écoute parler des des des des sottises perdre mon aw ma boobu ci benn colopathie hmm? bon mais maintenant les roode naa ñoom roode nañu. léegi ben et menage maintenant je ne peux même plus descendre à 14 heures c'est plus c'est plus possible liggéey bi dafa dafa yokk volume liggéey bi gaaw na mais damay dem léegi ba 17 heures et quelques 18 heures dama wàcc je peux pas je peux pas. parce que nag ay ñu ngi ciy am moo waral ñëpp daw song. ñii di ñëw par exemple à 14 heures à la dernière minute bëri aussi waaw léegi sax xam nga nit aussi bu léegi dama dama màgg nag. nit bu ñëwee 16h sax fekk nit ñaa ngi fi dinaa mer sax naa la non non arrêté naa mais <laughs> dinaa mer ni rek man man mënoo dañ ci mer man bonuma ah, man je peux pas nekkoon ku bon sax yow tamit yàlla jël secret bu day nii di def ci man nekk sax man mënumaa bon man mënumaa bon jullit mënul bon waaw man je je sais même pas faire du mal xanaa nga tooñ ma waaw ma tooñ moom moo wala doomu ñaareel ah, la. la la la man man kaay kaay kaay kaay defante moom ma gën a kaay lekk man boo boo boo amee rek am nga problème man man du ma baale dara te su may ñaf sa ndey c'est pas la minute c'est pas la minute damay xaar ba nga fàtte ko ma def li may def. yow yaay fàtte mais man du ma mos a fàtte man plus ça bi di di gën si sa wax sànq mooy que dëggu nga xamante yaa ngi koy liggéey ak doomu adama ak di ci faj nit parce que euh, daan nga wax ne mos nañ la question ma ne da ngay faj nga mën a du faj rey waaye euh, ah. faj faj bi daal eh, lañ day faj rey jëlul mais j'ai j'ai ma benn garab boo xam ne j'ai écrit rey. am na benn garab sax aussi bu ñu naan day faj xaw ma lan nit ñi di ko jël mais j'ai jamais dit que je soigne ça am na benn benn garab la bu nit ñi di ñëw voilà comme par exemple sida ah. nit ki am sida di ñëw di jël garabu hépatite dama lay naan man duma faj sida de ñu waaw moo ne naa ñëw rek nga jox ma garab hépatite yi man la jëlal mais j'ai jamais dit que damay faj sida pourtant de pourtant de hépatite moo gën a jafe faj sida mais publicité bi ñu def ci sida dix ans ñi ciy wax di ci communiquer di tiital ni ñi xoolal coronavirus ak neex a faj moo gën a yomb faj ci àdduna mais bi ma génne boo da ngay faj ne waa kii di se prend pour ki <laughs> pourtant fièvre dong la grippe dong la lu yomb faj la ma ne la suñu suñu suñu kii yi suñu suñu bisaab yi mm-hmm. boole ko ak jinjeer ak yenn kii yenn eh, ñaari garab laa boo ko boole c'est fini <laughs> Nescafé limon sa ak ñaari garab yooyu boo ko defee sa coronavirus biir sinusite kay moo gën a naqaree faj que que que que coronavirus xaaral dina am virus encore bu ñëw c'est hmm? programmé yow coronavirus bi génn 2020 c'est programmé depuis c'est programmé par l'Institut Pasteur depuis 2005 je crois ah xanaa xamoo guerre la rek dañuy dem ubbi ko Chine pour pour détruire l'économie chinoise léegi nag ay du yem ci boobu borom <laughs> affaire bi tasaaroo <laughs> guerre la woon rek c'est une forme de guerre c'était <laughs> dañu foog ne Chine rek la yem ñu rew non non ko ko moytul moo tax il faut Sonko falu non il faut Sonko falu il faut ñu am suñu indépendance nag économique et tout gën a neex ci projet Sonko mooy franc CFA bi ñu ñu génn ko <laughs> non gaañ mi gaañ Sonko Sonko benn affaire la Sonko waliw la ma ñëw ci benn feebar xam naa fa laay tëj ak yow mooy ci côté estomac hystère dafa am différence ñoom ñaar parce que mais nag sonal na nit ñi ah, lu bëree bëri ci àdduna bi. mooy estomac bi di métti rek mais bu demee ba am góom loolu la ñuy wax ulcère. boo amee góom da ngay gis fii day métti après muy jam nag ci ginnaaw comme pont comme pont loolu mooy ulcère góom la loolu quatre semaines laa koy faj alors que tubaab mënu ci dara dañu lay màccaloo garab di la taneloo rek waaye doo doo mos a wér man quatre semaines nga wér. te mm-hmm. Mm-hmm. bu lekkee day lekk. ko mën bu ñëwee ma faj ko. naa leen mais xam naa bu mu ñëw non bu lu tax may woo. non attends lu tax mu may woo. l'adresse c'est simple Petit Mbao entrée Petit Mbao am na Kalando Kalando bu mu jëlee mu ne kër docteur Abdoulaye Diallo ci mag mi ñëw dugg lu tax sax may woo bu mu woo sax woote même secrétaire yi bu mu leen woo man bu ma woowee sax du jot. waaw léegi na ñëw. dina jot secrétaire yi mais jarul woote ñi war a entré pétition clando yi kër docteur laa jël laa jëm ci mango yi mu indi la ñëpp xam nañ fi nga ñëw nga bindu nga ran doo fay dara ba sa ran jot boo ñëwee nga ne ma ulcère nga am ma ne la fayal raxas biir bi 15 mille faj ulcère bi mille 55 mille weer nga ci 4 semaines basta boo nee nga yóbbu say garab yëpp damal ñibbi bul ñëwati bul ma nuyu wala problème il a besoin de me connaître pour ça moom munul ñàkk jom ba faj ci feebaram donc ragal jàll ba rey sa bopp yaa ñàkk jom ñel sa gaan boobu moo ñàkk jom man de feebaruma man moo feebaru muy faj dinaa dem bu yeboo mu rey ma ah jàll di recevoir ay centaine de personnes par jour yaa leen gën xam nga ñooñu dañoo dof préjugé baaxut préjugé baaxut baaxul Hmm. nit ñi dama gis sax ci mbedd yi ak ci Auchan yi ndeysaan bu ñu ma gisee ñu naan ndeysaan nii la simple je savais pas ah, soxlawu ma ko soxlawu ma ko mais nag am na ñu ma imposé garde corps ñu indi ko fii ah, jo jox nañ ma benn commando quoi mais bu bu 18 heures dafa rek ñibbil du bëgg ñibbil. <laughs> bu dee ni ma ko non suba sa ropp <laughs> dama koy dàq su may dem jàkk mu topp ma damay mer damay mer et puis su may génn jàkk bi may gis mu defaraat sama daal yi damay rus. ñu ànd fenn ñu taxaw noonu doon jënd benn pono. taf taf amul tey. <laughs> <laughs> mais moo tax moo tax tu es obligé d'avoir des vitres teintées <laughs> mhm. nit ñi dañu bëgg waaw da dugg ci Auchan gis nit jooy eh waaye maa la bëgg wala gis nit ànd ak jëkkëram taxaw di jooy ak ay eh bëgg a ngi nii eh nangam mhm. waaw damay taxaw nuyu la jàmm sant yow mhm. ku la bëgg mënoo koo fay xam nga. su amee bésam benn cinq wala jox la nga jënd yawur pour xale yi waaw adduna du dara ñun ñëpp bokk na ak bàyyi Sénégal il faut ni ñi am philosophie boobu Diallo mm-hmm. def fi nekk yor say doom mm-hmm. di leen yaral mm-hmm. yow nga yor foofu samay doom nga leen nga ma leen di yaral dañuy dundee noonu sama doom mën na sëy sa kër sa doom mën na sëy sama kër on est tous un nañu ratax rataxal diggante yi na lépp rafet ci dé ci hors antenne sànq bi ñu commencé na ngi naan ñu ngi naan ñëpp bëgg Sonko kee naan am na ñu bañ Sonko après nga ne Macky Sall dafa bañ Sonko ma ne Macky moo gën a bëgg Sonko waxoon naa ak yaay émission nit ñi weddi ma mm-hmm. xoolal xam nga wax naa aussi benn émission gatsa gatsa bi ba léegi ba léegi pourtant gatsa bi lañ nekk de. te gars yi waa EPN gatsa gatsa bi mujj na masa masa ñun ñun dinañu masa masa ñun dañu masa masa kenn woon nañ leen ragalu ñu kaso de. bi ngeen ñu bëggee génn dañ leen ne génn leen d' abord les prisonniers politiques la ba pare tey yéen a bëgg négocier ak ñun parce que xam ngeen ne c' est fini pour vous ñoo ñooy jël bi ñu ñooy jël pouvoir bi bëgg ngeen bokk. Macky sal ci boppam tey mu jub Sonko moo koy arrangé parce qu'il sait que sinon il va payer <laughs> moom xam nañ ci jeexal na di li ko desee <laughs> motul 40 jours 3 avril léegi moom mooy def discours <laughs> bu ko defee de kenn du ko déglu parce que suñu président man de 2 avril Macky Sall nekkatu sama président je dirai jamais président Macky Sall à partir de 2 avril ex président Macky Sall wax te bu moytul de avril xaar 2 avril ngi ñëw di poser benn question non mais Macky je l'adore man man moom je man mënuma bañ nit waaw ay stratégie politique la doon def ça c'est ça pour c'est son intérêt Sonko stratégie politique la doon def bu mu ñaaw quoi. waaw bu mu ñaaw bu mu ñaaw bu mu ñaaw et puis gis ngeen tey xam xam na ne il a perdu et maintenant il fait il fait le play euh, xaw ma ni koy waxee mu ngi fair play mu ngi fair play nit nag bu fair play da ngeen xam ne vraiment fair play na non il a été grand c'est là où il est sorti par la grande porte nit ñi bu ñu naan il est sorti par la petite porte non non non c'est maintenant que président Macky Sall est sorti par la grande port parce que mënoon na continuer ci lii ci xeex yi mais aujourd'hui il a su que c'est fini que xam nga reporter élection yi c'est parce que daf nañ sondage xam nañu Bassirou Diomaye may mooy gagné di moom xam naa amul baa daa ñàkk di il est le mieux informé war nañu reporter léegi. échec nag conséquence joxu ko dégg ne ko doo nekk les élections dans les plus brefs délais le deux danga war a joxe leng yi hmm? xam na donc même la ba il a perdu nangu na léegi nag ah, nangu na sa victoire mu ñëw nuyu la ah mais c'est comme ça xam na ne Sonko daaneel na ko sans passer par les urnes Sonko daaneel na Macky ak régime am sans passer par les urnes voilà la vérité. <laughs> wala déggoo ma <laughs> Sonko. ku ko moytuwul. ku moytuwul. boo moytuwul. billaahi même yàlla doo ci am doo am ci moom walla. même ci côté yàlla. Mm. doo fa dara. ku ko songoon. sonk sanku na ku ko songoon sonko dafa am benn affaire ma jaaxal sonko wax ci moom da koy gën a bëgg man le gars il est-ce que xam nga mosuma ko nuyu je le connais même man j'ai même pas j'ai même pas une carte de Pastef xaw ma sax seeni kër yi je connais personne de Pastef à part Cheikh Bara je connais pas xaw ma leen man xam nga man du ma politicien. je fais pas de la politique. xam nga nag bi ma ne naa ko jox 200 millions motagul at bu motee at mhm. bu ñëwul jël si mhm. dinaa vidéo ngeen vidéo 200 millions yi man leen 200 millions yaa ngi nii jël si ko ça at dugalaat naa sama compte xam naa vidéo bu viral encore lay nekkaat. waaye 200 millions yaa ngi fi ba léegi de. ne ko maam mbay ki nga xool bu dee loolu rek mais léegi loolu nekkatu problème sax mais maa ko waxoon gor laa tooroodo laa. waaw damay respecté sama kàddu. ba ma gis ne affaire boobu jeex na ma duggalaat deux cent millions ci compte. parce que man sama compte actuellement xam naa ay trente deux mille moo fi nekk. li ma yoroon sama compte laa vidé pour faire Sonko. <laughs> banque la l'habitat amoon naa fa dara de eh, c'est man mënu dem banque yor naa fa sax benn carte gab parce que dañ ma ko yónnee de Ziguinchor carte gab bi billahi def na 14 mois mu ngi ci biir yónni nañ ko banque bii nekk Rufisque man mënu ma dem rang du ma rangal kenn pour ma retirer sama carte yi ba ma rang alors que su ma leen doon versé xaalis ñoom ñoo koy jël si léegi je tiens je garde mes millions du ma leen versel dërëm parce que man duma ma leb banque man maa leen doon lebal samay millions ñu koy liggéeyee. Mm-hmm. du nañu xool samay mouvement quatorze et quelques mois dafa am mouvement. retrait rek laa doon def carte bi périmé ñu changé ma carte ba léegi jëliwu ma ko. te du ma ko mës a jëli. te pourtant fay naa xaw ma vingt six mille droit bi soxlatuma sax seen banque xaalis bu fa ne saa baal naa leen. léegi Coris banque laa dem te kooku sax seen informaticien bi comme il est trop banquier Mamadou Mbaye mooy ñëw fii jël xaalis yi dem ubbi compte yi moo ak Marie Madeleine léegi Marie Madeleine dem na IPRES boole na ma ak un certain ba bi nekk Coris banque bi nekk Zac Mbao kooku tamit mu ngi may sonal ci ay message pour pour ma ñëw defi ay ma waaw Coris banque di dinaa la versel hmm. léegi 200000 bu ñu ko jëlee ma dem versé ko Coris banque jaajëf <laughs> am